xalifa bàyyi Mouhamadou Mokhtar yàlla na fi yàgg tàmbir yàlla defal ko ahlu bayti bi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw waaye di ñaanal kilifa diine yëpp ci réew mi ak fu ñu mën a ne yal na yàlla woyofal seen yéen sunu réew mi di Sénégal yal na fi yàlla def jàmm. yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na jàmm ji yàlla na law ci àdduna bi ah di nuyu sunuy imaam di leen ñaanal waaye di nuyu borom dëkk bi mu ëmb Cambérène yëpp muy bàyyi sañaa mu baax mi ci taxawaayam ci nuyu na waa Ndakaaru ñi nga xam ni kenn mënul wax ci diini ji génne leen ci bàyyi lay moo ni woon Ndakaaru mooy sama ruum yàlla dogal Ndakaaru di capitale Sénégal te balay bàyyi lay di woote bi nekk fi waaye moom moo waxoon ni capitale bi dina ñëw lu mu waxoon gis nañ ko waaye ñoom waa Ndakaaru dañu sagal Baay Laay ci wooteen bi ci biir Ndakaar kenn yàggu leen yàlla nu leen yàlla fay albatiku nag gërëm farlu ci diine ji ndax taxawaay bi dafa rafet yéen ak shérif la woon ba tey dellu leen ginnaaw kon ngërëm loolu maa ngi koy teg ci loxo baas mu matale njaboot gi yëpp waaye gërëm nag sunu njaboot bu tedd gi muy daayira yi ci diggante góor ñi jigéen ñi yéen da ngeen nu sagal fu a ne kon yal leen yàlla sagal mal batiku nag di gërëm monsieur le ministre El Hadji Malick di am mbégte ci sa taxawaay ndax lii du sa njalbeen disponibilité bi nga am xam ni danga fi am ci bu jotee nga def ñu ngi la ciy gërëm di la yóbbante nag ci monsieur le président ngeen ni ko sunu xol sett ci yëg gi mu yëg li ñu ne sama bàyyi def moo kon ku la yëg na nga ko yëg ndax ñii la yëg waaye di am mbégte ci moom ci lii ndax réew mi yàlla moo dogal mu jiite ko waaye ba mu nee defuma troisième mandat loolu ku yàlla def ci yow xol bu yiw di nga ko remercier kon nee ko ñun ñëpp ñu ngi ànd di ko wax merci ci loolu mu def waaye di gërëm Adja Tresse sunu jigéen ñi moom it muy ku baax ku fite ci li mu nekk yal na la yàlla barkeel ci sa taxawaay gërëm nag suñu meeru dëkk muy dun pàtte ci taxawaayam bu rafet mu itam ci dëkk bi yal na nga teer yi waaye suñu député maam gay day sàkk am taxawaay lool eh, moom diine ji la jiital balay dara di kon maam yàlla na nga yàlla parkeel ma ànd nag ak ma gërëm nag jëmm joo xam day wéy jur ci ñun day bàyyi ci ñun muy bàyyi Maodo kii fu mu toog mën na faa toogal xalifa bi ndax loolu lay dund kon bàyyi yàlla na fi yàgg taam wér yàlla yokk sa sutura ah ma ànd ak sama kilifa maam libaas laay dee ko baax ñu and ak suñu rak jo xamne ne nañu fu mu ne muy Seydina Idriss yalla nga teer gis na ni bi nga joge legi goor ñi nga faral ba tax ñu yëngu parce que yëf yi jeexagul film bi jeexagul parce que ma ngi ñëwaat am na leer yo xamne dina leen ko commander ta xam na ni ñu ñooy gaj ñun jigéen ah, xam na lo it jere jërëjëf yalla na yalla fay fi ma tok nak matewuma palaas bi matewuma ko ku toll ni Mouhamadul Amin di doomu Baabul Ulum man Babacar di sët ci Seydina Limaamu alayhi salaam nga xam ni bu musaan toog fii jàkkaarloo ak ñun xel dal bu jamono doxee ba ngant ñëw ngant lolu wacc ci mom waccat ci sama bay mam libas, ñu dal di may wo jox ma ndigal ma lu dul jëfe ndigal waye bu ngeen ma xoolee bëtu ñooñu bu sotti ndax dara je ji aggu fa xam-xam bi aggu fa mag ji aggu fa kon nak bal lu ñu am rek ñu jël

waxit man su ma ko doon résumé dama koy résumé ci ñeent parce que ñeent maa ngi wax ak jullit yi waaye ku dul jullit aussi te gëm yàlla mën nga ko jëfandikoo xam nga ku ba a dox dem ca amul mag amul ndaw waaye ndaw yi lii day seen ndax mag mag la ba pare li ma bëgg a wax monsieur ministre mooy ñeenti bi ci jëkk mooy problème mu ndax bu ngeen ne choix du mooy tal bu ñu ne destin nekkul ci loxo nit am de ci loxo yàlla la di dama leen waxoon ci suuf ne ku fi ne am pour ñu résumer mbir bi mu ku fi toog ku ne mag ak ndaw ba ci ministre bii toog ak treize am nañu ay projet président de la république am na ay projet waaye nan la ñuy def ak waxu yàlla Idriss bi yàlla ne eh sama jàmm abdi uriid wa ana uriid ne sama jàmm yow da ngay bëgg mën na ko nu ñuy def ak loolu dëgg nu mu ci teg fa in turid bi maa urit اعطيتك ما تريد su ngeen bëggee li ma bëgg yow soo bëggee li ma bëgg ma defal la li nga bëgg fa in lam turid bi ma urid adamtuka bi ma turid wala yakun illa ma urid mu ne nag li ma bëgg soo ko bëggulee ma xañ la li nga bëgg te du tee man li ma bëgg rek ay am xanaa problème bi résoudre na ci ñi gëm yàlla treize affaire bi jeex na bu ñu yem woon fi tam bi doy na ci ku dégg laa yow da nga bëgg yàlla bëgg yàlla nee na boo bëggee li ma bëgg ma defal la li nga bëgg boo bëggulee li ma bëgg ma xañ la li nga bëgg te du tee li ma bëggee am bu fekkee ni dégg nañu lii fa ngay sukkandiku ba la ngay ñëw ci ñeenti point il faut que il faut que wala naa jëkk ci ñeenti point yi bu njëkk bi bu njëkk bi ma ni bu responsabilité problème bu responsabilité mooy ëmb ñeenti responsabilité bi dafa mel ni teg fii tattali parce que choix bi yàlla moo ko rëdd ba pare inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafur kon yàlla tracé na ba pare ah mu ni yoon wu jub waa ngi nii fii mooy yoon wu bon wi léegi nag tànn na xanaa choix mu ngi ñëw إباحة في الدين لطخ خط بين الرشد من الغي موني فرصة أمول شي ديني باسكو ديك دافا سوا ليرال نا يون فمن يكون بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفسام لها ولا صبير عليه كم قال ليرال نا بيون لا كرم بيكرمو mune nak ku jàpp ci yoon li nga xamni geureum gërëmuma ko na la wëru su sa du neex lolu moy wa man arada an dhikri fa inna lahu maishatan tabqa képp ko xamni da nga war ginnaaw yàlla billahi wallahi wa tallahi do nek daal ko wax nañu am courage diko waxante ndax ay julit li wa man arada an dhikri fa inna lahu maishatan danka loolu bëgg mu parce que jàmm du nekk jàmm fekk da ngay safar waaye ak lu la dal te boo dee dem àjjana rek am nga jàmm maa ngi ko wax kon nag nga dégg ci ne responsabilité bi nga defee sa choix ba pare suñu borom sa responsabilité sa ci ñeent nga koy teg mooy jëlal sa responsabilité sa diggante ak sa borom pour ngeen dégg teel al insaan mu xayyar aw mu sayyar jëlal sa responsabilité ku fi nox ku fi toog mag nga ngay ndaw rawatina ndaw ñi jël leen seen responsabilité seen diggante ak seen borom loolu mooy lan nanu jaamu yàlla c'est clair dama ni nanu jaamu yàlla nanu wóolu yàlla nanu gëm yàlla nanu wéetal yàlla xam nga lu tax moo loolu Idris ku jël sa mbir jox ko yàlla buur yàlla méngoo nga jox ko keneen mu seetaan la mbugal kon lu ñuy def ministre bi ndax yaa ngi may dugg yaa ngi may dugg bu baax dama ne ku jël sa mbir jox ko yalla bur yalla mi doon nga jox ko keneen mu seetaan la mu gën la ku jël sa mbir jox ko yàlla buur yàlla méngoo la nga jox ko keneen mu seetaan la mbugal la lan moo tax mu ne yaa man te yaa sañ te yaay defaatoon bi keneen ku dul yow du dogal ci jaam yaa xam lépp ci gis leen te li ci ku xellu dal ko bokkaale dafa fiir ci jaam bi bunta baa ngi kon jël leen seen responsabilité seen diggante ak seen borom nga lu tax wax naa la ko démb Idrissa ca suratu mulk tabaraka lazi bi yadihi l mulk man li ma wax laa gëm de xaw ma thème bi nu ngeen ko mën a dégg man lii laa gëm de tabaraka lazi bi yadihi l mulk ndax man ay jullit laay waxal jullit nag dañ leen di wax lu leen di jariñ tabaraka lazi bi yadihi l mulk mu nga baax yéen ngi wax ni jamono dafa yàqu da ngeen di laaj ñi ko yàq ñan la lu ko yàq ñan la xoolal boo nee jamono dafa yàqu ñee neewaat nii ne man ki ñi ko yàqal ci laa fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydi nas yàlla nee na ñun ñu ñoo yàq jamono kon man waxtaan xool Macky Sall moy président Yalla na fi yak be day jeex mom bu amee téeméer ak lu mu mën tam day dem way ngoro gi day jeex ndax bu ngeen nguur fi nguur gu fi ngoro nguurug Yalla rek ci dess des gis ngeen période bi parti yépp ñu ngi inscrire di confirmer seeni carte pour ni man membre la wala déet man ak candidat la ak ña ñu àndal ku ne naan fii laa bokk wala déet ci parti yëpp mu jaral leen lu ne kenn toogatu waa gaañi bu fekkee ne ku ne am nga parti jël nga fa carte di confirmer ne militant nga bu dëggu ca parti ba waaye ñun nan la ñuy defee naka la ñuy def ak parti yàlla na ala inna xisballahi humul muflih nee na parti yëpp day daanu sama parti mooy taxaw wala déet tabaraka alladi bi yadihi l-mulk yàlla moo moom muur ci loxoom la ci loxoom la bi yadihi l-mulk xoolal ñi fi nekk buur dañu déggee dañu télé dañuy faral dañuy ñàkk te dañuy ñàkk yàlla nag moom mu ngi fi ndax lan wa wa huwa ala kulli shay'in qadir amul lu mu télé lépp la man li ma yéem ci ay bi mu bindee yi mu bind te moom lépp dafa ci jukki ñaar ñaar yi nag nit ñi ñu ci xel muy xalaxal mawta wal xayaa yàlla nee na ci biir ñaar yi ma bindatul dee bindatul ñu ni ko waaw dee moom comprendre nañ ko soo i Ibou Sakho dafa ànd ak xaritam ñu tiim Addis Abeba mu ne xarit bi ndax dëkk bi am na koo fi xam mu ne ndax am na koo fi xam mu ne ko xaw ma fi kenn mu ne kaa man day xam naa fi ku xam ñëpp ah mu ne xam naa fi ku xam ñëpp ah mu ne ko xam yow dëkk ne xam nga fi ku xam ñëpp mu ne xam naa fi ku xam ñëpp mu ne ko kookan la mu ne ko malakul mawti seetal li واصلوا جتهم فيك لفنني ولو كنتم في بروج مسيدة قال خلق الموت والحياة أي من لك تأكزمنا حياة دونك ندفي أكزمنا يا لنبي يبلوكم أيكم أحسن أملا هل يدبلوني يا لنبي أكزمنا لما تصحبنا موي كاليتي soxlawu ma quantité axsanu amalan mooy jëf ju sell te tegu loolu laa soxla mais soxlawu boo xam ni sell amu fa bari mbooloo moo xam ni fees na del te yàlla nekku am mbooloo bu tuuti yàlla nekk ab kam min fi qalila galabat fi atan kasira bi iznillah maa la ko wax pas ëppalante ay mbon mbon su ko defee nag jël leen seen responsabilité man ak yéen ñu jaamu yàlla yàlla du caaxaan du caaxaan du benn mbokk ñaareel bi jël nga sa responsabilité Ablaye Fall sa digganteeg sa borom ñaareel bi jëlal sa responsabilité sa digganteeg sa bopp bu leen kenn yàpp bu leen kenn yàq ma répété ko bu leen kenn yàq pour ñu yàq la mooy nga def il faut que tawhid bi nekk bi ngëm-ngëm bi dafa ne sa yaj'alu ba'da usrin yusra ku ne am nga droit def sa choix mais bul def lu lay gaañ ndax tey bu ñu tegee suppu tànn teg mbaxal teg euh, nu mu tuddati euh, euh, maafe teg jiw teg jiitu jën mais ku ne am na choix mais sa choix na doon li gën ci am de am loo xam ne boo ko lekkee doo nelaw a dalay dal sunu borom wala turku bi ay diikum illa tuhlika kon jaar ci yoon woo xamante ne mën nga faa def te ci yoon ne da ngay tukki ngir buddi wërsëg xamoo li xew ku am ku xam lu xew doo def lool boo ca jaaree mën nga mucc boo réussir lu sax def nga la nga war a def kon bu leen kenn yëpp koo xam ne nag da nga def loo warul def ak noo mën a toll ci réew mi ñuy yàq dafay yomb dama dugg ci sama oto sama chauffeur may dégg maa ngi ci kanam geesuma sama ginnaaw bi may ñëw bu ñëw si ma geesu gis monsieur Sadji ci ginnaaw quatre muy jàng maa tudd turam ma ne ko wax yéeg a def lii lan la mu ne ah sànq fii soriwul fii rek la ñu jëm ma bu ma policier arrêté lu may wax lu may wax parce que ku tooñ ñëw doole maa la ko wax ku tooñ rek da ngay ñëw doole ma ne bu moo amati parce que bëgguma ku ma yàq. kon bu leen kenn yàpp gis lu ngeen di def settantal leen ko ba xam ni lii lu jub la ngeen nekk bu jubul ngeen bàyyi ko parce que bu ngeen defee lu ngeen warul def ñu yàpp leen waaye dama bëgg ngeen am pas-pas ni sa yajalullah baada usrin yusran lu mu jafe-jafe lu dund gi métti métti yàlla ngi wa man yattaqillah yaj'al lahu maxraj moo tax ma jikki ci tawhiid bu ngeen ragalee yàlla ni ngeen ko war a ragalee xoolal lu jamono métti métti yàlla dina indi porte de sortie lii la war a wax ak xale yi bàyyi dem nan leen damay damay damay dama bëgg a teral samay wayjur damay ba nga tekke fan ci xar déedéet xale yi delloo siwaat leen seen xel dama bëgg ñun ñëpp ñu delluwaat jaamu yàlla ragal yàlla xam ni yàlla moo wax ni yàlla lu mu wax du bañ nee ma ragal ni nga ma war a ragale lu jamono tar tar tar dinaa la utal porte ba sotti te nag du ci am de wa yarzuqhu min haythu laa yahtasib dinaa la wërsëgal loo foog mu ne jaar ca aaya ba wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh ku wéeru ci yàlla na la yàlla doy doya dee ngi am nga jël sa mbir jox ko keneen ku dul yàlla Serigne Touba sama maam ju baax maam Mor Anta Sali dafa génn àdduna mag ñi daje ne ko dañu nga am relation ak Lat Joor ngir li mu yor mu mën la ci jox ndax sa xaritu bàyyi la ko mais Serigne Touba duglul tontom dafa ne nun lay jële sama mbir di ko jox koo xamante ni dafa lott ci mbiri boppam wax leen ma mag ñi ñaar xool leen fi ñu bay laay ba mu ci tolloo mu woo mag ne leen bu amoon ñu ñëw ne dañuy faagaagal limaamu lu ngi di def mag ñi nekk sunu ruutu ko fekk mu ne leen hey génn leen dem ca jàkka ja si kari bàyyi leen mag yàlla muy man ak ministre yeeg ñëpp ku amul garde corps boo moytul doo dox waaye mag ñi yàlla moo doon seen garde corps xool leen fi mu mujj ak réussite bi ñu am kon xoolal defal li la war bàyyi yàlla ak sa bopp wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbuhu ndax lan inna allaha balighun am qad ja'ala lahu li kulli shay'in qadra xoolal ah ah ku wéeru ci yàlla ndax na la yàlla def joxuma la exemple ci kéwél kéwél dafa ëmb ba war a wasi mag dab mu ngi ci tefesu dex bi comme géej gi mag bi tar mu xool à droite gis rëbb bu koy yott mu geesu gauche gis gaynde bu koy yott sunu boroom xëy na la asamaan yëngal ka bëru ka bàyyi melxat melxat bi lakk kanam àll bi di tàkk mu nekk ci digg kon lu nekk ci ginnaawam dex lu nekk ci duwaatal waaye wax leen ma rëbbkat bi lan moo nekk gauche gaynde gi lu nekk kanamam safara mag bëgg la tam mu ne yàlla ko dëmmal ngaa yëg ñaari tànk yi nekk yàlla bàyyi naa la ak sama bopp loo def neex nag gis nga ba mu waxee loolu ñaareelu dën mu gataan bàyyi mel xat mu dal ci bëtu rëbb mu sànni fi tagal mu mooy jëm gaynde taw ba sóot safaraw yi fay mu wasin fi jàmm kon nanu jël suñu mbir jox yàlla ah? mais du tee nag nga li nga war a def tekk ci yoon ba pare bàyyi ak yàlla du ñaara ngoog bu njëkk bi lan na tontu leen ma déedéet responsabilité moo ëmb yi bu njëkk lan la wax leen ma jël seen responsabilité seen diggante ak seen waa jigéen ñu dégguma leen jël seen responsabilité ak seen diggante kenn yàq dama koy répété bu leen kenn yàq ñetteel jël leen seen responsabilité seen digganteeg nit ñi ku ci ne koo mënul dimbali bu ko lor leer koo mënul dimbali bu ko lor du ñettandoo parce que ku ci ne bi nga ñëwee dafa am loo fi fekk li fi fekk boo ko mënul yokk bu ko yàq c'est clair ba léegi loolu fi nekk liggéey moo koy maye te liggéey bi bu leen xeet jaay gerte ñi nga réew mi maa wat mag bu yàlla ku jël yàlla mën na laa sutuba parce que cinq millions yi nga ñàkk dem bitim réew ñu delloo si waat la mënoon nga am départ ma la ko wax mais man gars yi ba nga bëgg man entrepreneur jalo laa woon weerloo weerloo yàlla sedd na ko Iba Mar gii laa doon dem jëndee samay nga te yàqu sama njàng Idrissa ngi nii ma dem te yàqu sama njàng parce que bëgguma sàcc bëgg naa am lu moo tax man ñi kenn mënu leen fay gaa ñi farlu leen bu baax tabax adduna bi gis nga ku ci ne fa nga dëkk sa bàyyi dafa def yow góorgóorlu ba am loo def boo mënul am loo def nag bul yàqal ci ne ah bu kenn yàqal ci ne boo defee nag ñu sant yàlla ñu sant yàlla bu baax góorgóorlu xam ne bu nu waxtaanee ci njëkk yàlla mën na utal parce que projet yi yëpp fi ñu war a teg suñu tànk suñu borom wax na ko bu ñu gëstoo fi ñu li ñu suñu borom wax mën nañu am réussite à cent pour cent mais li ma tiit rek mooy ñu wan yàlla ginnaaw te billaahi buñ ko wanee ginnaaw suñu dara du baax ndax dégg ngeen ma boo defee nag libaas yàlla yàlla yokk sutura man daal ku ma mën a ku ma mën suma kàddu dafa am leer boo xam ne daf may yëngal daf may yëngal ndax muy tëj waxtaan bi ah muy tëj waxtaan bi ah sama bàyyi nag daf ma waxoon ne doom ñaar fi tool yi ak tool yi tool yi ak coow yi mu ne bu ma la dégg ci coow yi naa leen dégg ci tool yi sëñ Ablaye ko wax sëñ Ablaye mii moo yar Serigne Ousseynou mii Serigne Ousseynou xamul bàyyam sëñ Ablaye la xam sëñ na Ablaye tàggat moo tax kenn mënul ni Serigne Ousseynou too waxoon sëñ Ablaye waaye moo tax yéen bi ngeen di wax jazaaka Baye Abdoulaye koo xam diine ji xam ni Baye Ablaye mérité na ñu ne ko jazaaka yaa Abdallah boo mérité liggéey bi ak moom tàggat ci ba Chérif taxawal lii moo tax ma bëgg ana jaari ba est-ce que mu ngi fi.